ku sopp yónneen loxo yi ca kaw araftul wara sharqan sëriñ ngañ sama waaji yow lay béegel araftul wara sharqan acca def leen nii la ko araftul wara sharqan sëriñ ngañ sama waaji yow lay أتدف للنيل عرفت الورى شرقا وغربا ولا أرى كمثلي فتى المنصور في سائر الورى إذا سبق الأقوام يوما إلى العلا يكون إماما في الورى والورى والورى والورى محمد منصور alaaji Mansour mooy baayu sëñ Bay Mansour asalaamaaleykum Sénégal ñu am mbégte nag tey ñu ñëw ba Thiès seet si koo xam ne kenn dootu ko présenté bu ñu waxee Serigne Ngagne Ablaye Diouf euh, sénégalais yi bëgg nañ ko ci métier bi muy def muy théâtre te ñu ñëw fekk ko si beneen facette nag mu tombé gàmmu ñëw fekk ko passé ak moom burdu bi macha allah ma bàyyi ko mu nuyoo ko intervention. waaw mais di sant yàlla bu baax di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di ñaanal mbokki internet yëpp jàmm. di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm def fi sutura ci barke weer bu tedd bi muy weeru gàmm ngeen ñëw fekk ñu ñu nekk ci burdu bi fi mu nekk nii kenn xewul fi nekk nii Seydina Muhammad rek moo xew te ki xew ci weer wi yeneen weer yi moo ci xew ki xew ci yeneen weer yi bis bu nekk moo xew semaine bu nekk moo xew minute bu nekk moo xew ku xew sax moom moo tax nga xew kon dañuy sant yàlla bu baax di ñaanal di ñaanal ñëpp jàmm ci barke yenent bi ci barke weer bu tedd bi waa xam nga damay wax man toujours da ko wax sama soxna samay soxna samay doom man leen awma benn événement lu dul gàmm tabaski bu dikkee ñu def ci liñ ci war a def korité bu dikkee wax dëgg yàlla ñu def ci liñ ci war a def mais gàmm moom la neen la parce que ki tax ñi gàmm moo tax tabaski am ki tax ñi gàmm moo tax korité am yeneen événement yëpp yow mag yi yi nga xam ne bu dikkee jullit yëpp ànd def ko su amee grâce à Seydina Muhammad kon kooku bis bu mu juddee soo ko màggalee bis boobu mooy màggal yeneen bis yi ci des xaw ma ndax yaa ngi may déggam déet soo màggalee guddi gàmm guddi gàmm moom dina màggal ndax moo gën a màgg ci guddi yi moom mooy màgg ba pare màggal tabaski ak korité ak yeneen événement yëpp ndax yo événement yu yëpp Seydina Muhammad a tax sallallahu alayhi wa kon nag man gàmm aw ma ci sago euh, période bi teewoon la ma doon fekk ma gàmmu ji ànd ak samay famille samay am di jàmm samay xarit ñi ma xam ñëpp di ma fekk si sama kër goro yi nekk Tiwaawan ma yor fa dal lu ma am nag def ko ci su ma amoon dix millions sax def ko ci su ma amee cinq millions def ko ci lu ma am def ko ci lu ma ci def nag xeeb ko parce que borom guddi gi moo toll noonu ci ñun kon tey boo ma laajee gàmm wax dëgg yàlla laaj nga ma loo xamante ni su ma ko tontoo après amaatuma sax leneen lu may wax waaw wax dëgg yàlla dañ leen a gis ci télé bi ci théâtre dañ ñaan sax na ñaan naan célébrité yi duñu amuñu diine tey ñu fekk la nga burdu ma di ngay wax nii yëpp yonent bi tax 10 jours nga burdu pare dem dem gàmm wala nga gàmm euh, nan ngay tontu ñoo xam ne dañuy am xalaat boobu xam nga xam nga loolu kenn ku nekk ak éducation bi mu am ak fi nga yoroo nit nag mënul xam wala mu am lu dul liñ def ci moom parce que lii moo juute ci ñoon théâtre suñu ay parents ci lii lañ ñu yar ci diine soo gisee benn instance doon ñu woon nangu nga dem def ci théâtre wala leneen parce que bëgguñu nga déborder bëgguñu nga dugg ci leneen loo xam ne ëllëg mën na am lu mu yàq sa diine mais su fekkee ne xaw ngaa am sens tuuti ñu tàggat la sa ay way jur nga nekk sa ay référence su la yàlla dimbalee tuuti war ngaa mën a yow sax recadrer sa bopp ba am yoo xamante ne yow di nga ci jéem a muccal sa bopp parce que mucc dafa jafe ndax nit moo manqué nit moo matul te li mën a tax mu déraper dafa bari mais yàlla mun na la dimbali teg la loxo ba même bu buy am sax du metti ba nga xamante ni dina la mën a gaañ wala mu yàqal la dara loolu yàr la am na ñu dul artiste duñ comédien duñ dara amuñu diine te ay ay jullit lañ lañ wax moom lañ dunduñu ko am na ay artistes yoo xamante nii tey jii nii bu weesoo seen aar seen bëgg yàlla ak bëgg diine tey boo leen fekkee sax ci seeni i ruq ñoom yéen ñi jaamoo seen borom dangay ngay wax ñi ñi duñ ay artiste ndax sëriñ ba nekk ci ruqam da jaamu yàlla leen na jaamu yàlla mais xam nga dafa am loo xam ne amul solo mooy nit kuy jaamu yàlla ba pare génn naan damay jaamu yàlla boo jullee naafalee junni rakka yow la yaag sa boroom la soo wér de ay milliards jël benn tour zikkar ko ay milliards sa borom la sa digganteeg sa borom la concerné wul kenn soo génnee sol sa caay dem théâtre ji loolu sa dig loolu sa wàllu àdduna la looy dem di liggéey di ñaq yi pour dund la sa njaboot bokkuñu lu ñuy dox sax mais leen lu ci nekk tamit yow la concerné xam nga mais daal li gën a wóor te am solo mooy nit ki bu fekkee doomu jullit nga daal comme munoo lépp mais nga góorgóorlu quoi ci lépp loo mën ci sa diine nga def ko loolu moom farata la voilà su la doon wax Tijaan nga da koy fësal si si tey gis nañ ko sa xol yépp jox nga ko joxe nga ko ci ci bu ñuy tagg Seydi Hadji Malick bu ñuy tagg sëñ Babacar Sy lan moo la gën a neex ci tarixa tiijaan lan ngay gis si Tijaan naw xam nga man gëmuma nit ku nekk dara di ko nëbb mm-hmm. man xawuma ko nëbb pour lan li nga bëgg gëm ko loo loo ci nëbb ak kan nga ko war a nëbb cest à mooy li ma wax sànq mooy dellusiwaat amul benn sens nit ku génn naan man lii laa genre julli ci guddi gi junni raaka génn koo romb ne ko démb naafale naa junni raaka naafale naa cent raaka amul sens yow la sa diggante sa boroom la ñi ci mbedd mi waruñu koo xam boo zikare ay milliards ci latif wala ci basmala keneen waru koo xam foofu laay dellusiwaat que nit ki tamit su fekkee dafa am lu mu gëm nekk ko bu mu ko nëbb kan la ko war a nëbb kan mais tamit bul fi nekk naan man lii laa doo ko def man xaw ma loolu du ma ko def mais li ma nekk danga may fekk ci sa milieu bi ma nekk xam ci lan fan laa bokk xam nga parce que danga ma fay fekk may pratiquer li nga xamante ni loolu laaj ma koy def su ma nekkee ci kaw chaîne ba ci kaw chaîne ba laa nekk ñaar yooyu bokkuñu du ma ko du ma ko jaawatle quoi mais li am solo mooy gëm-gëm parce que nit dañuy wax ni bant sax boo ko jëloon di ko jaamu te gëm ko mun na la jariñ parce que gëm-gëm bi nga ci am moo tax kon gëm dafa am solo dafa fort kenn waru ko fooye kon nit warul gëm dara pare di ko nëbb man xalaatuma loolu sama adduna man li ma gëm boo ma tegaloon ay milliards tegal ma ay or tegal ma ay jamaa li ma gëm moo ëpp loolu doole li jëntuwuma ko li ma gëm rek laa gëm doy na ma sëkk lu keneen gëm macha allah man nag ah, Cheikhu Tidiane yi mooy sama mbir la waaw Cheikhu Tidiane sama mbir la xam nga ndax daretu yenent bi la te buntu la ci Seydina Muhammad te yàlla daf ko jagleel maamam jagleel ko yaa may dégg ku ànd ak moom sunu borom may la ay jagle nitu yàlla bu nekk ci nitu yàlla yi ni ñu wuutee kenn ku nekk sunu borom tibb na ci li mu am jox la yàlla li mu am du jeex su joxoon ñépp du tax mu yëngatu xam nga mais ci li ko yàlla jagleel yàlla boolu ñu ak moom ñu dund ko ci sunu ay xool yi amuñu ci moom sago ba képp ku bokk ci moom ñun dañ lay dañ lay day am fo day am looy représenté ci ñun waaw te suñu buntu ci Cheikhu Tidiane Cheikh Seydi El Hadji la. ma bàyyi la nga lan ngay dégg ci moom mu neex la loo xam ne. tey euh, bëgg nga ko ci roy wala waaw li ma bëgg li ma bëgg a roy ci Cheikh Seydil Hadji Malick bari na dafa am yu ma neex ci moom. en tout cas simple na te yow simple nga. merci beaucoup merci beaucoup. <laughs> Mhm. kon dafa mel ni sax trouvé nga. Mhm. question bi. Mhm. dafa am lenn lu ma neex ci seex Seydil Hadji Malick damaa xool mbindam yëpp musuma gis fu mu bindee pour boppam musuma gis ci mbindam. wala lu ñu nettali ni moo ko bind fu Maodo bindee ni man Maodo yàlla may na ma lii wala defal na ma lii wala man Maodo lii déedéet dafa bind léppam jox ko yenent bi moom effacé wu loolu Seydi Hadji Malick def Seydi Hadji Malick dafa bind léppam wax ko yenent bi wax nit ñi loo xamante ni imagine wun woon ni nit war na mën a ñëw xam yi parce que am na loo xam ne nit ki pour mu nettali ko foog mu fekke ko mais ku topp yenent bi ci leer ba mu judd topp ko bu dugal ko ci bàmmeel te yow yenent bi génn na àdduna lu ëpp junni at nga soog a ñëw gane àdduna kooku kooku leneen la kooku tey jii bu taxoon di ñu wax boppam amaana sax ñu topp ko bañ a gëm yeneent bi mais am na nit yàlla yoo xamante ni suñu borom jiitu na ci ñoom ba ñu xam fii ba mille ans luy ñëw ci ci ci jamono ak nit ñi nan lañ koy interpréter ak nan lañ koy dundee soo ko maîtriser nga teel a effacé parce que am na yoo xamante ni wane ko dina tax sax nit ñi topp la def la yàlla topp la def la yeneen doo yeneen yooyu yëpp si daa ma def ko effacé da ngay jàng ni daal nit ku simple la ak li ko yàlla may lépp da ngay jàng ni nit ku simple la loolu ngay jàng ci moom waxul dara pour boppam mag ñi ñi mu nekk loon ci li mag ngi nettali bi mu leen tàggatee ba mag ñëpp mus yàlla xam xam yàlla dund yàlla Maodo tàggal leen ba kenn ku nekk nekk ngënk moo xam ni bu la yóbboo ci benn barab mën ngaa defar barab boobu ba ñëpp jub fekk na leen ñu toog ci benn jataay mu leen waa man Maodo su ma ñëwaatoon ci yéen wax leen leneen lu wuutal lekk li ma leen nàmpal naka ngeen di def ak man ñu ne ko Maodo su boobaa ñu ñaanal la yàlla xam ni yow yaa génn gaam ci ni ma koy mën a waxee yow yaa génn gaam mais ñun ñu ngi ci temps bi temps bi ñu jàngal teg ñu ci gis ñu leneen lu dul loolu soo dikkaatoon wax ñu leen lu wuteeg loolu du ñu la déglu ci lii la ñu lekk ñaanal la yàlla nga fekk suñ ci liñ nekk mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba Maodo fexee ba liggéey wan nit ñi yàlla nëbb boppam moom Malick looyu façon façon yar la façon dafa nit la yoo xamante ni dafa am solo yar nit yi defar ko ba lu mu gis xàmmee ko lenn nekk nga xam fan nga ko war a teg xam fan nga war a teg sëñ Babacar fan nga war a teg Cheikh Omar Fouti fan nga war a teg Cheikh tiijaan yeneen bi lan la am yàlla lan la am yooyu kenn waru koo jaawale kenn ku ne am nga loo am bu nu ko jaawalee rek mu indi mu musiba yàlla nañ ci yàlla musal. amiin amiin su ma la doon wax sa yëg-yëg ci sëñ Babacar si. déjà boo tuddee turam rek sëñ Babacar si sa yëg-yëg ci moom. yàlla moo ko defal lool. Serigne Babacar si yàlla moo ko may loolu loo xamante ni kenn xamul lan la parce que am na loo xamante ni mar day taali ci caméra ga jàkkaarloog man yaa ngi yor micro di wax ak man am na loo xam ne kenn mënu ko wax ci muy dugg ci ji macha allah mais am na loo xamante ni yow yaa koy xamal sa bopp su fekkee suñu boroom dimbali na la tuuti yow yaa koy xamal sa bopp yaa koy gisal sa bopp yaa koy déggal sa bopp ma sàmba du la ko woon ma demba du la ko woon keneen yaa koy xamal sa bopp ci jaxratan nii yaa koy xam nii mais du nekk loo mën a expliquer mais man wóor na ma ni am na loo xamante nii man du ma ko mën a wax daal. mais il faut du ma ko mën sëñ Babacar ko woo ci Euh, dafa gaaw maanaam foto bu dusu woon bàyyam ku ko woo ci photo muy la loolu tijaan yi dañ koy doxee sax di ko waxee di ko am gëm-gëm boobu noonu est que am nga anecdote boo xam ne sëñ Babacar Sy certes du maye yàlla lay ñaan mais nga dis ko soxla. waaw xam nga mooy li ma la wax mm-hmm. mm-hmm. mi tàggat na leen ba ñu xam le xew. fii dama ni la kii joxe kenn la muy yàlla sunu boroom mm-hmm. yenente bi ci boppam moo gën ñëpp mais yenente bi joxewul yàlla moom mooy joxe yàlla mooy jox Moustapha Moustapha jox ku ko neex ñooñu jox ñu leen neex loolu maanaam programme suñu boroom la mais ki joxe moom kenn kese la mooy yi ma la sànq ñu xam kenn ku nekk lan la mën a def mais nit dina jël addunaam yépp jox sunu suñu boroom loolu yàlla wax na ko muy lu leer nit dina ma jaamu ba mujj man yàlla may bëtam mujj may tànkam mujj may xalaatam mujj may léppam su boobaa nit ki lu mu defati du moom yàlla moo def parce que yàlla bu demee ba nekk sa lépp loo defati du yow moom la tey jii bu fekkee ni yow dimbali nañ la ba nga xam loolu tey jii nii di nga mën a def tawasul ci sa barke sëriñ ak leeram parce que da nga xam ni jeex na tàkk ci yàlla ba yàlla nekk ko moom moom ñu nekkante ay baat la yoo xam ne ni wax ko boo amul dégg-dégg doo ko mën a tàqale mais lu yomb la nit munul fexe ba nekk yàlla du nekk malaayika bu la yàlla joxul tiiru nga nekk yonent nekkuloo yonent mais nag nit mën na nekk jàmbaar jaamu yàlla ba li ñëpp li am nga am ko boo demee nag bu sur borom dimbali li ci loolu tey nit dina def tawasul ñaan ci sa barke léegi yàlla def ko loolu nag li koy maye mooy nit ku sell jox léppam boromam ray bakkanam jaamu yàlla ba àgg ci martaba yooyu nga xam ni soo tuddee turam rek yàlla wooyu la. Ah, est-ce que mës na la def. Cheikh Abdoul Khadir Jalaani amoon na loolu. am nañu ko si no moom laa lay wax xam nga. Mm-hmm. en tant que en tant que artiste comédien. Mm-hmm. ah damay bëgg di ëpp di wax ci sama wàllu aar ak yooyu. Mm-hmm. mais waxuma sax ay ay gént waxuma la gént waxuma la gént de mais gis. gis mu wax ak yow ci lu nelaw am na yaa ma gën a xam parce que kenn ku nekk lu ko yàlla defal loolu dal na ma lu baree bari ci moom lu baree bari ci yeneen ñu yàlla dimbali mooy loolu du parce que day day kéemaane daal day kéemaane daal te te du maanaam boo ko waxee tamit njariñ bi du bari nga li ma bëgg wax foofu rek mooy nit la kenn xamul lan la nit mm-hmm. nit moo yiime la suñu biroom suñu borom bindu moo ñaale ko loo xamante ni kenn xamu ko parce que nit dina la romb fii am benn melokaan wala mu romb la nekk ci façon liggéey boo xam ni yow da ngay jàpp ni kii lu yàqu ci àdduna bi moo ko yàq fekk suñu borom mi ngi ko yàlla la neex muy may nit fekk suñu borom a ngi koy may loo xam ni su taxawoon wax ko ñëpp dañ koy weddi billaahi su taxawoon wax ko nit yi dinañ ko weddi nii kii dafa dof wala day fontu nit ñi fekk lu am la mais yow mi koy dund comme xam nga ko sunu borom xam nga xam na ko boo taxawee si nit ñi di ko wax amul benn solo mais kenn ku nekk xam nga sa bopp maanaam sa digganteek sa borom li baax ci yow parce que nit ku ne am bon nga jéem a xool noo góorgóorloo pour defar ko nit ku nekk am nga lu baax mais dama la am na nit ñoo xamante ni ay nit adduna yi lañ sunu borom daf leen di dimbali xoolal bu dara dee ñëw ñoo xam ko te kenn du leen ko su dara dee xew luy xew sax ñu xam ko laa bëgg a wax boog luy xew danañ ko xam nii mais seen yoon nekku ci dañuy noppi tëj seen gémmiñ parce que soo waxee sax ñun la yow fenkat nga doo waxatu dëgg fekk ñoom yàlla xam na dimbali ni leen ñu koy xam du jeex du xaaj yàlla xam na ko mais fekk yooyu du sa wax xëy na loolu benn ku ñu wax kilifa diine ku am mbooloo nit ñi di lay déglu ñooñu lool mooy seen ay rôle mm-hmm. pour ñoom ñu dund loolu mais tey bu nekkee benn artiste comédien yaa xam benn jaaykatu marché yaa xam dégg naa ci benn kilifa diine mu ni am na ñoo xamante ni ay jaaykatu marché lañ yor magasin ñii ay avocat lañ te ni ñu miine adduna bi lañu miinee barzaq ñi ngi fii ci adduna mais dañuy composé ñi nga xam ñi ngi seen biir bàmmeel yi loolu suñ la ko waxee ah, soo amul bopp doo ko mën a firi te loolu moo parce que lan yàlla mooy may nekkul nga jàng wal nga bañ ba nekkul ci ay jàng ak bañ a jàng yàlla mooy xool lu ko neex mu jël ko defal ko doomu aadama bi su ko nit ñi gëmee baax na suñ ko gëmul baax na mais daal li gën a am solo mooy koo gis nga jox ko cër koo gis jàppal ne am na la suñu borom def ci moom peut loo xam ne nekkul ci yow koo gis jàppal ne peut-être mën na la dimbali comme yow ni nga ko mën a jariñee mën na la jariñe noonu pour ça c'est bu nit ki dundee loolu ànd yëpp dina rafet. waaw nga sóor sa morom am na solo. <laughs> xaw ma kañ la xamatuma ko. Mm-hmm. man man man presque chaque jour Tivaouane laay xadara. Mm-hmm. chaque vendredi. chaque vendredi. kon bëri nga fa tànk. man bis presque man bis bu nekk ma dem Tivaouane presque. presque bis bu nekk ma dem Tivaouane mm-hmm. mooy loolu. ba jigéen nga si am Tivaouane boo demee dëkk li ñaan dëkku leer la. waaw Tivaouane day man day su ma demee taan wax dëgg yàlla. soxluwuma dara lu dul dem julli bu dee vendredi def sama xadutu juma def sama ay ziar ñibbisi naa wala mu dem sama kër goro am aw ma beneen soxla Tiwaawan loolu rek laa fay wuti mais xam naa ci mbaaxu yàlla xanaa ma bañ a nekk Sénégal wala ma feebar amul événement buy am moom te du ma ne te du ma dem Tiwaawan. Mm-hmm. est-ce que yàgg na. ba mais yàgg na. dafa mel ne wax ci du ma wax man bi may jël werd kilifa laa gis may julli teg sa ma jël ma gis ko nii mu ne ma demal nga jël werd am na yoo xam ne kenn du mun a wax. laa ilaha illallah sama doom bi ma tuddee Cheikhou Tidiane mooy loolu am naa doom tuddee ko Cheikhou Tidiane man mais macha allah turam lu tax mu am turam lu tax moom mu am turam. ah doo affaire la. mu am turu Cheikh Tidiane du ma ko gént. da koy gis <laughs> du ma ko gént de géntu ma ko de. da koy gis. géntu ma ko soo demoon laaj ko yaayam léegi mu wax la moo tax man la am na yoo xamante ni wax ko dafa dafa jafe. soo ko géntu da ko gis moom moo la wax nga dem ci biir. kan. Cheikh Ahmed Tidiane non du moom de du Cheikh Ahmed Tidiane de. sëñ Babacar mais gis na du Serigne du Serigne Babacar Samit du Serigne Babacar si tamit waaw mais man nekk naa studio Serigne Babacar si ñëw fa studio. ma gis ko jaxaratat moom ak alaaji Mansour ak euh, ku bokk ci ñoom mais xam nga yooyu noonu wax dëgg yàlla bugguma ci bugguma ciy dugg daal yooyu moom day compliqué day compliqué pour man man daal naa dund sama affaire aar yi daal xam nga fi ma waxee sama dem Tiwaawan bu jotee ma dem Tiwaawan su ma wérdi ba jotee mu wérdi parce que koo xam ne sa dara matul sa dara jagul xam nga mooy loolu mais nag des nit ki dina toog di jaaxle parce ni ni ni yow ni mbir yi demee daal yow sa bopp doo ko mën a maîtriser mhm. te doo ko mën a comprendre quoi da ngay xam ni daal yàlla daal mooy def lu ko neex daal kenn xamul loolan la. est-ce que bokk nga di nga teew di nga dem daayira wala. daayira comme. daayira daayira tijaan wala. bokk man man ci lépp laa bokk. Mhm. man wax dëgg yàlla ci lépp laa bokk léegi fu ñuy tuddee yàlla fu ñuy waxee yeneen bi man bokk naa foofu mhm. man damay dem ba daaka damay jugee fii. bu daaka commencé damay dem ba daaka toog fa ba daaka bi jeex ma ñibbi siwaat fii maanaam fu ñu jaamoo yàlla su ma amee jot am sama xaalis damay jël sama oto dem foofu toog julli comme nit ñi jaamu yàlla zikkar la ñuy zikkar comme ñëpp ñibbi waat fii su grand théâtre jotee ma sol sama caay dem grand théâtre théâtre jeex na ma bàyyi nag tàggatoo lan ngay tàggatoo ñu seetaan parce tey ñëwuñu la jël ci métier théâtre dañoo ñëw jël beneen aspect boo xam waaw beneen aspect waaw xam nga lu tax mu garaaw nag. Mhm. beneen aspect boobu su fekkee damay wax te wax dëgg am na wax yoo xam ne su ma ko waxee du baax. loolu mooy sama problème est-ce que jëli nga mhm. dafa am wax yoo xamante ni kon ne ku nekk suñu borom lu ko jagleel. dafa am wax yoo xam ne da koy xam yow dund ko tamit lu mel ni midi su ma ko waxee tey ay musiba lay jur est-ce que xam nga ma waxee du mën naa bañ a nekk nga neel te fekk yow xam nga. Mhm. loolu moo tax ma waxee noonu. moo tax ma ni xam naa parce que émission bi concept la. boo xamante ni ah ci wàllu nit ki ak diineem la. mais tey su ma waxee munuma wax lu dul dëgg. xam nga mais su ma waxee dëgg man xam naa ni man na nekk leneen parce que mooy li ma wax sànq benn nit booy gis tey jii su ma ñëwoon tey wax la benn affaire gis naa lii gis naa lii gis naa lii moo génnee looy wax kii ay waxu dopp la may wax te barki yeneen bi day fekk loolu lu am la da koy gis nii. da nga koy gis luy xew sax Sénégal nga gis ko nii yow ko waa kan ngay dem du ko wax kan ngay dem du ko wax mm-hmm. ah, mooy loolu da ngay yaa ma gën a xam mm-hmm. peut-être nga ñaax rek jeunes yi di xam ne dañuy saagante ci internet bi ku ne di xëcc sa moroom wala di wax kilifa yi wax yoo xam ne teggi newul ci ci ci réseaux sociaux yi. loolu moom loolu moom yàqu-yàqu bu mag la loolu yàqu-yàqu bu mag la mais man damay wax ni eh, li leen permettre ñu mën a def loolu mooy fi ñu koy defee su fekkoon ne loolu tëj nañ ko ba mëntuñ koo def loolu dootoo ko dégg parce que bu njëkk li tax loolu amul doo woon dara saay-saay yàgg na ci àdduna bi yàqkat yàgg na fi mais bu ñu amul woon possibilité tey pour mën a toog wax jël dugal ci internet bi ñëpp xool ko loolu du am bu njëkk internet xamuñu ko woon peut-être portable kañ lañ ko comm ñun fii kañ lañ commencé xam ay portable ay quatre-vingt-dix-neuf deux mille lañ commencé xam fii ay portable xamuñu woon internet benn instant mais bi yooyu yëpp ñëwee yaatu ba ku ne jot ci ci la nit ñi di profité kenn ku nekk mën a jaar ci sa benn porox ndoll pour su la bëggee lu ñaaw wax ko mais tamit ñu xam ni wax lu ñaaw amul solo te gënul xam nga wax lu ñaaw amul solo te gënul parce que koo wax ñaaw mën na la ko wax koo wax sëriñam lu ñaaw mën na la ko wax mais dañoo waroon dem xool kilifa yi ndax ñoom bi ñuy liggéey lu ñaaw lañ doon liggéey wala lu rafet liggéeyuñ ci dara lu ñaaw ñëm ñëpp yàllaa leen tax a jug lu rafet la ñu liggéey kon soo nekkee taalibe nga bokk ci benn kër ak kër bu mu a doon li waa ji doon wax boo bañee ku saaga sa sëriñ bul saaga sëriñ jàmbur nit ki warut a saaga kenn bay saaga sa ay sëriñ léegi nag li xew kenn xamu ko kilifa diine bu liggéey yàlla jaamu yàlla ba dundam jeex jeex ci yàlla tàkk nga gis koo xamante ni defalagul yàlla dara am possibilité pour wax ñëpp dégg la wala pour gis la nga taxaw di saaga kilifa diine te xam nga lu gën a garaaw mm-hmm. da nga koy def dara du la ci fekk ci moment boobu nga nga nga yaakaar ni dara xewul fekk ni gis nga ko nara daanu di yéeg jàppal ni loo gën a yéeg rek boo daanoo daanu bi day gën a metti gis nga buñ la dee dóor buñ la dóor ñaari yoon benn yoon lañ dee dóor buñ la dóoree dootoo dootoo yëngu kon képp kuy def loolu taw bàyyi. alaaji Mansour mooy bàyyi sëñ Bay Mansour. waroo ko ŋaañ. mama Abdoul Aziz Dabakh. rawatina ay nit yu liggéey ba yàlla gërëm leen vraiment loolu moom nit yi war nañ ci bàyyi xel xalaat am na leneen lu ñu war a tal mooy jéem a fexe nu Sénégal développé jéem a fexe ba kenn ku nekk nooy yëngatoo pour mën a am dara nga dund nga dund sa njaboot man yaakaar naa nit ñi bu ñu xëyoon di tal yii am na yeneen yoo xam ne duñ ko tal. mais tamit su fekkee nit ki dem na ba yaakaar li ko war a dundal ci réseaux sociaux yi la koy jëlee ay vie internet lay am di am xaalis te moom nekkul artiste comédien amul lu mën a def pour nit ñu xool ko ah yaa ma gën a xam bu fekkee saaga mooy tax nit ñi di ko seetaan wala def lu bon ci loolu lay nekk mais loolu gënul. d'accord gënul ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ trop. ci man it maa ngi leen di jaajëfal bu baax. waaw di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ñu waat ko déwén ngeen ngeen ñëwaat fii ñu def émission bi kenn bañ koo manqué kenn bañ a feebar te fi ñu tollu déwén fi ñu tollu ren bu déwénee ñu ñu ñu romb ko ñu gën a avancé ci suñu lépp suñ suñ gën a avancé ci suñu lépp yàlla ubbi buntu sax gi def xéewal bu baax chaîne bi gën a dem ba nekk ci télévision yi gën a mag ci Sénégal ak ci biir àdduna bi yàlla teg leen loxo teg ñu loxo wax dëgg yàlla waxtaan bi neex na mais ci point bi ngeen ma dugal nag <laughs> munu ma développé nag damay laal rek bàyyi mais vraiment yàlla na yàlla def jàmm yàlla def sutura yàlla yàlla sax bu ñu dérapé ci biir wax ji yàlla bu ñu dérapé wax loo xam ne day xaw a lëndëmal xelu nit wala dara mm-hmm. parce que wax dafa garaaw te nit mën ngay wax loo xamante ni moment bi nga koy wax sax mooy loolu mm-hmm. kon dañuy jégalu rek bu xam ne bu ci wax bu déborde amee nit yi jégal ñu ko mm-hmm. mais daal ñëwee nga te ak émission boo xam émission bu doy waar la parce que nag maa képp gauche képp ma droite waaw su ma jaaree ci kanam fekk la fa ci ginnaaw yaa fa taxaw kon xaw ma def ah. <laughs> waaw la noonu la macha allah yal na yàlla def jàmm daal. ci buddu bi la jugee presque. Mhm. fan yii yëpp suba la ñuy jeexal ñëpp a sonn. waaye yéen yeneen bi moom mbiram ku ci nekk doo doo doo yëg coono ndax boo demee ba jàpp ni sonn nga. bu ñu ko laalee mu neex rek dootoo yëgati coono. dëgg la dëgg kon <laughs> tey ñun ñoo ko defandoo ah. kon yàlla nañ ko yàlla boole yiw bi ci barke yi nit incha allah merci beaucoup waaw ah, beneen yoon nag voilà boobu nag moom <laughs> dinaa mën xàpp moom ñu jaxase affaire yi mu neex mais fii comme ci beneen côté bi la ah foofu moom waaw macha allah yal yàlla def sutura.